message bi nga xam ne ñeme naa ko wax mooy message yu boroom maanaam Ahmad Bamba bi ko tubaab yi wooyee juróomi fan ci weeru septembre 1895 ca Ndar ñëpp mën nañ ko seede tubaab yi dañu ne yàlla amul tey amul ëllëg nit ki na toppatoo li xew léegi maanaam lépp fi la yem muy wut xaalis muy wut li muy wut la waaye bu fi kenn ki rekk ndekete yoo loolu mooy lay laïcité kon na leer de Sénégal na bàyyi caaxaan laïcité bi mu bi ko tubaab yi bëggoon a signéloo lu mu àndal mooy li ñuy wax les rois républicains rois républicains mooy lan mooy ay démocratie ay kii ay droit justice et cetera loolu lañu ñu ne na ko sëriñ bi signé mu ne leen indil leen ma stylo bu bees lu mu si signé qul huwa allahu ahadun tubaab bi lim bëggoon mooy yàlla amul sëriñ bi ne ko nag yàlla am na kon Sénégal watawat problème bi nga xam ne am nañ ko tey jii mooy ba ñu yóbboo sëriñ bi ca gaynde ya pour rey ko gaynde yi dañoo ñëw jébbalu lépp xam nañ ko moom la tubaab yi di wax l'épisode des lions gouverneur ba keroog tuuti mu xam léegi biñ ko dugalee fii ñetti fan lu ne ñu def ko ko ndakaaru mais lu tax ndaxte sëriñ bi dafa ne moom du xaadimu rasool rek moom dafay représenté sallallahu alayhi wa kon moom du serviteur rek de déedéet héritier la mais héritier boobu luy liggéeyam nan yóbbu sëñ Touba addina bee ko soxla France ko soxla Amérique ko soxla chinois yi ñoo ko soxla kon nanu bàyyi caaxaan yi kon li nga xam ne moo moo bon ci addina bi du Covid bi ñuy wax ay Covid ak ay caaxaande du lool de li ci bon mooy yoon wi nga xam ne ñii ne yàlla amul ñoom ñoo ko jël loolu mooy xaalis ñoom lañuy wut te képp koo xam ne jàng nga Serigne Touba wala nangu nga jàng alxuraan xam nga ne moos ne xaalis bi alhaakumut takaaturu hatta zurtumul maqaabira kon xaalis daf lay yóbbu foo xam ne daf lay rey kon Serigne bi li mu liggéey. tey jii Sénégal yépp war nañ dajaloo ñu liggéey ci madlabul shifaay yaa man yarum taf a kulli daa i maanaam yow mi nga xam ne da ngaa bëgg a faj sa feebar bu la dal bul fàtte mukk falaatu faarix madlabul shifaay bul fàtte mukk li nga xam ne moom mooy saafara si waaw wa dum alayhi maanaam bul ko bàyyi mukk muy suba muy ngoon boo ko bàyyiwul nga dëgër ci wa axlis da danga am bu sa borom yelloo tanaal ci faay wa falaax kon sëñ Touba jeunes yi mag ñi addina bi guinéens yi maliens yi américains yi tubaab yeeg yëpp nanu delluwaat ñu xam ne li jafe ci dëkk bi li jafe ci àddina bi sëriñ Touba moom moo nu ko bañal kon nanu bañ ci yoonu Serigne Touba maanaam kon ji Jinaan moom mooy solution bi nga xam ne moom la àddina bi di wut benn livre boobu moo am dans le monde entier li may wax ni muy Amérique muy France muy Chine muy fépp benn livre boobu moom moo wone ne fiq zahir bu àndul ak tasawuf àndul ak baatin du joxe li muy wut kon nanu góorgóorlu ñu xam ne sëriñ Touba jëmmal nañu dafaral nañu kon nanu dàq franc-maçon yi nga xam ne ñoom ñoo ko yóbbu foofu lépp bon franc-maçon yi la